jug leer ci soodaan xamul yaa ngi rootaan sangoo leen ko ñuy naan moo gën ndox mu naan lay sideeroo raxmaan dunay maa ngi oo lay bayaaram balaa oo ba day yaafu lay lay sideeroo raxmaan dunay maa diyu lay bayaaram balaa oo ba day yaafu naan lay sideeroo raxmaan dunay maa tariqam nga di taaw di seedeem ba tey yaa fu ne yaay sedeero wa rahman danay maa di yoo yaaram malaako ba tey yaa fu ne dangaa jub sa ñuñ jub wayof toy yu niw xob di jàmbaar defub tab sigil yaa fu ne yaay sedeero islam bi yaa ko amee bu leen yoon wareere nga sañ ko wane yaay sëlee yoo wa rahman banay maa di yoo ba yaa rahman ba day yaa ku ne kii kaa borom ci xam ci seen kaw nga jël ndam sigil yaa ku ne koy dey borom daal yaa koy wane lay sireero wa raxmaan ba dey maa di oo ba yaaram ma laaxoo ba dey yaa ku ne kaa ku doyloo sa xam-xam balaa jooña gën a xam doo tàggoo ki jam-jam yu rey wet gu ne lay sireero wa raxmaan ba dey dul jeex te raw lem ci ak neex tamit waaw tànga koy wane lay te deri doo ba raxmaan danay maati yoo ba yaaram ba laaxoo ba tey yaafu naa ba lay géej gu dul jeex te raw lem ci ak neex te lamboo la teex tànga koy wane lay te deri doo ba raxmaan danay maati yoo ba yaaram ba laaxoo ba tey yaafu naa fetal seeni ñaaw ñaaw nandal gaayo ñuy kow xanaa xaw nu ñoo na ku man day wane lay sedeeroo wa raxmaan danay maadiyoo bayaaram balaa xoofa day yaafu na bay lay ku lay roy ci bii xar nu feeñal wane dangay njiit ci lislaam bi yaa leen tane lay sedeeroo wa raxmaan danay maadiyoo baay laay gënal nga sunuy ndey gënal nga sunuy baay te sunuy maam gënal nuy junne laay sedeeroo wa rahmaan ba day diyoo ba yaaram ma laa bañ du kontaan lu waaj waaj du waxutaan bu wàllee ñu reetaan lu man man mu ne laay sedeeroo wa rahmaan ba day diyoo day lay ba njool may taxaw bis ni tey ngay xaree téeroo sa muy dal saaku na lay si téeroo wa raxmaan ba ni maa di yoo ba yaaram ba laaxoo ba day ci baatin bu doon saayiroo nga jamloo mu daaneel ci góor ay junne lay si téeroo wa raxmaan yaram balaa booba day yaafu ne Isa ay jàmbaar nga àndal ku lay sóoru gental sanga naay la koy dal di wér bay wu ne lay tëjee loo wala maa tëjee maa di yoo ba yaram balaa booba day yaafu ne Isa la géeyal nga yàlla la géeyal nga bay lay ba jot seen ngërëm doo fi maatum guna lay tëjee loo wala maa tëjee maa di yoo

te bay lay lëndëm sànq fu gay ki tax ngeen di lay lay yàlla ko yónnee lay sedeero rahman dale maa di yoo ba yaaru balaa ko ba tey yaaru waaw dañuy ñaan ki nuy may mu yóbbal nu buy doy ba ci muñ nu farwe ci mi ngir nu ne giroo gir mu tagleeg booleeg ndeeyi def pees yu jëm pey bu naay lay sédéeroo wa raxma ngeney maa di yoo ba yaaram ma laaxoo ba dey laafu ne waawaaw sañseel gëm ya ñuy bees gisoo giroo gir mu tagleeg booleeg ndeeyi def pees mu jëm pey bu naay lay sédéeroo wa raxma ya jégal gëm yu teew yaa ña làqoog soppeem yaa ci nit ña jinne yaay sédéeroo wa daf man nga dee maa di yoo ba yaaram ba làqoo ba tey yaa fu waaw waaw dundal diine lislaam ci barkeb di njiitam di soppeem di koy mañ ku ne yaay sédéeroo wa daf man nga dee maa di yoo ba yaaram ba làqoo ba tey yaa kii di dekkal mu lëndëm mu leeral bëggee ju wax mu wekkal ñi naan saaku na lay segeero raxmaan danay maani yoo ba yaaram malaaxoo ba tey yaa limaamu ay kiimaan nga àndal te say seede jeexul ku laam laam la laajal ci mag ñii fu na lay segeero raxmaan danay maani lim ci bii xarnu mooy xam borom boole ko tooñu yow xanaa ber sa saawa sa ñoñ nangi faawa ba cig lëndëm lay si deeroo wa rahmaan ويلولي دنگي دين فولي فلا سك حولي حقيق إكم أي سجيرو ورحمة دلي ما ديو بيارم براخو بتيا فلي waaye dañuy sànq njalkeen jëndiñ mucc mu lew ba fir daw sunuy biir ku ne taabalam ay sëgéeroo rahman dalay maa diyoo bayaaram balaa gis tànk yay daagu dox ndànk luy loola seen tànk yay temteme lay segeeroo wa rahmaan danay maan yoo ba yaaram balaaxoo ba tey yaaku waaw yaram yépp a koy yëg kawar yépp a koy yëg muy bànneex bu dul dog bu dootul yeme lay segeeroo wa rahmaan danay maan yoo ba yaaram balaaxoo santeeb yonentam mu woote kuuyuwul bu sotte ngëre ahlu soodaan yonen feeñ woo leen dangeen gàntu ne ngeen du moom noo ko gëm lay sedeero wa rahmaan la nee maani yoo ba yaaram balaa ko ba tey yaa fu waawoo doore lay jeex ndefek tal ya day weex ci téeréem da dul neex tey jeexal xolam lay sédéero wa raxmaan da day maadi yoo ba yaaram balaa xoo ba tey yaafu waaw waaw ku fiy jaax la laajal ñi xam ñoo di tegtal ñu seytaane réeral ba tax ñoo gëlëm lay sédéero wa raxmaan da day maadi yoo ba yaaram balaa xoo ba tey yaafu jibul neen jinum yàlla raw leen ëllëg teel mu laaj leen fasaam ak walam lay tëddeeroo wa raxmaan dalee maa di yoo ba yaaram balaa ko ba tey waaw waaw ku bañ yërmandey buur keroog yow la ñuy dóor mbugal war ko muy nuur du tàggoog laram lay tëddeeroo wa raxmaan dalee maa di yoo ba yaaram balaa ko ba tey waaw waaw yonen ba mu woote la saabaam ya foote ko noon amanaate mu laabal xolam lay tegeero wa rahmaan bane imaam yoo bayaaram wala xooba tey raafu waawaaw ci saabu yi boroomam saxoo tur wa mooy xam-xalam muujisaatam te fàgguy ngërëm lay tegeero wa rahmaan bane imaam yoo bayaaram wala xooba tey raafu laay laay ci nit ak ci nee na leen wóor ni sey dey borom xarnu dee. laay raxmaan gonay maa ba yaaram ma laaxoo ba tey yaa ko dee. waaw waaw boole ñi solmal ñoñom. laay si dee doo raxmaan gonay maa ba yaaram ma laaxoo ba tey yaa ko dee.